ñoom duñ sol sax yére bu ñu sport kenn ki am na ay doom yuy bëree barki Seex na Tijaani bokk na ci li ma yàlla xamal ne eh, FNM jeex na. dégguma sëñ bi dama ne xam naa benn sportif boo xam ne du football du handball du volleyball mm-hmm. waaye dama ne la gis naa ci koo xam ne nii sportif boobu moo nga ja xam na ci sa ay doom ñaari doom yuy sportif yoo xam ne man xam naa ne seen ruu gi jamono ji may wax yow mu nga xaalu mu arwaax tëdd. kan eh, bu mag ki nga xam ne am na ay doom yu sport ruum gaa nga xaalu mu arwaax xam nga loolu moo gën a garaaw. ni mu wóoree ni Peter Macky Sall du gagné tous élection yi di ñëw la ma wóoree ne kooku may wax ak yow man maa man maa gis ruu gi man man maa gis ruu man yow la kan mun la man la ruu nangam nekkoon ci jëmm nangam dama ne la. man maa gis loolu laa wax koo xam ne ruu gi dem na barsàq te jëmu jàng fi dox te daa quelques jours da ngeen dégg sportif boo xam ne nii bàyyi woon sportif ndax mag la bu boor ginnaaw na man sa Moustapha Dramé yàlla kese di xam ruufu doomu aadama xam rawatina doomu aadama maa leen ko wax tey na ma gisee woon bu con sekk ba